jàngale seen diine ji te dugal ko seen xol yi te gëm ko te jëfe ko seen cër yi moo ci tax jariñ asalaamaaleykum caawul kenn xamul looy def kii xol ba xamul lu mu xol ba ñuy déglu xamuñu li ñuy wax loolu yar du teggin du diine te lii leen ñor yéen a ngi koy jàng ba xam ko yéen a ngi jóge fi di dem bitim réew kenn jàngu ci arab kenn jàngu ci français kenn jàngu ci dara. dem ci réew ma xam amoo fu mbokk xamoo fa kenn fa cëpp di fexe ba di jën fi ba mën a wax ak ñoom mën a jëfandikoo ak ñoom di wut teraanga di ko indi fii ak di ko tedd foofu kooku bu bëggee xam diine mën ko xam da di caaxaan rek fasalu ahla zikri in kuntum laa ta'lamuun ku laaj xam ku jàng xam waaye li def diine du diine diine ji yonent bi sallallahu alayhi wasallam fi ko yàlla wàcc ci moom moomu ko saaba yi moomu ko sëñ Tuubaa moomu kenn moomu ko ku dul yàlla suñu borom te moo ko tëral boppam te niim ko tëre ku ci aw jëriñ ku ci aw doo ci mën a jëriñ kenn mënul ko ci dara ñuy wax di waxi caaxaan rek fii rek leen fayisaan bi faqa fi suul falaa sabin mais moo di si falaa sabloon waxtu buuf toole askan amul diwee sama ndaay am am ko diwee sama ko day dañuy sànq suñu bay du rek mooy man di sama morom jàng leen seen diine ji di jëfe ko ku ko jafin koy teel jàng si di teel a jaam yàlla boo liggéey booy diggaale yàlla xetam sax du fa xeeñ walla këru këru jëf la du këru askan du këru meen du këru der du këru xeet këru jëf la te yéen jul noog jaam ñëpp a yem noog jul yëpp a yem jul am lañ bëgg ñoom ñoo ko jëfal seen bopp jul bu fa def loo dara doo fa am dara leen la wax da lay rek te seen tubaab naqul kenn Cheikh Awa Balla mi noxul kenn lim den doon wax di ko jëf ngeen di koy yéen koy dégg la si Ibra Faal ko wax ñu ko dégg ñu ngi koy jëf ñu koy gis la Sëñ Tuubaa bàyyi fi mi ngi koy jëf Sëñ Tuubaa wax na ñëpp dégg mu jëf ñépp gis mu bind bàyyi fi tomb loolu mu def ko ku ci mbedd mi yaaba naa Sëñ Tuubaa Sëñ loolu dara de jàngale seen di jëfe ko bu ci bëggee jot bi te bàyyi pomi bay leen pomi bàyyi leen pomi yàlla bind ngir ko de afasibtum annamaa xalaqnaakum abasan wa annakum ilayhinaa laa turja'uun yàlla bind ngir ko de te kenn kenn bis booy diggaale yàlla kenn kenn bindu fa xëy du ndey du bàyyi du sën du wàll yi du du yàlla bu ko doon aati yow ma xiyaamat fardan da nga def yow képp la yàlla bindu bu kenn da ngeen di faral di fooy des koy jàng ba xam ko gëm koy soxal di ko jëf say cër kem sa kattan di jëfe njëgal yàlla yi kem sa kattan di daw teram yi kem sa kattan di ko tuubal mu yoroon la jéggal la waaye ku ne mën naa la naa la war na teraanga yu sax te doo sonn waxul dëgg ku bëgg teraanga sax da ngay nangoo liggéey te bañ yàq ku bëgg àllaaxira jor ju sedd te fa la nga fay bëgg da ngay ragalee sa borom di ko jàpp képp sa kàttan ñun yaakaar ci loolu képp lañ leen topp woon sëñ Tuba wowul kenn jawul kenn forcewul kenn laa ikraaha fi diin dafa ne ci dëgg rek ba ñu bëgg dëgg topp gi ngir yàlla rek te ku ko topp ci dëggal ku ne war na lu ci yàlla loo xamuloon amal na lu ci yàlla loo amuloon gisal war na lu ci yàlla loo gisul woon ku ko jàdd woo ci mbooy gi boo liggéey doo ci woo moom daal doo ko gis doo gis doo si ko ko gis sax sans masque yëpp li ñuy wax dara du ci dëgg dara du ci dëgg muy mban di sama morom ku la woowee falo jaam yàlla ku bu doon bay dugg yow yàlla xetam sax du fa xeeñ sëñ bi ñuy tuubaal dinañ ko bàyyi sëñ bi mu wàcc na jëf na ñëpp gis mu wax mu bind ñëpp ba bàyyi bi te mënoo ci gis sunna ku ko tuumaat da ko da nga te walaay da xam tooñ ku baax bokk bu keroogee diine lislaam du diine fo du diine caaxaan jàngale seen diine ji tëggam ko te jëfe ko te ragal yàlla kenn ku ne bare yàlla bind sa biir kenn fettilu kenn kenn dimbaliwu ko ci moo def la ab toq seen képp goog man yi comme neex ko mu def ko aw lumu ba mu nekk ko mu def aw suux ba mu nekk ko mu def ci ay cër dul dundal yaag sa ndey deel sàmm yaag ba mu soog ko mu génnal bu ko neexee boole leen dundal bu ko neexee rey sa ndey dundal bu ko neexee rey la dundal sa ndey yoo ko jël ay amina may yoo ko jël may tamit lax wata sox moom rek moo ko mën nga dund mënoo sa bopp dara sa di jëmm mu def ci mu ay kéemtaanam yu mat a yow mii mu jur boo xiifee mu jox la wenam nga nam te bu xëytee du la ko jox nga lekk bu sawee du la ko jox nga lekk te lépp jëm jënd jéem jëm ji. kaman loolu kooku teqante la nga mën a sopp dara nga màgg ne fekk ne lu ma neex def nag te naa diw laa yaakaar diwlu yoonam sa digg yàlla bàyyi duñu diw da yaakaar day aw ci yoon bi day aw ci si nga ne ko caaw ngeen jote bu ceeb loolu joteekul aw lu mu wax du dëgg boo ci nangu taw jotewu leen dara jaamu ji leen yàlla suñu borom jaamu ji leen yàlla suñu borom jaamu ji leen yàlla suñu borom moo ñu bind de te ku ci des sukkaraat doo gis sëñ doo gis kenn doo gis ab yonent doo gis kenn boo demee sa bàyyi noonu sëñ Tuubaa wax na ci wolof wax na ci làkk tomb na lu ne def na ko lii di bakko yéen baykat yi kat Sëñ Tuubaa firi leen ko firi mu leer nañ yéen ay bay ca waaroon naa làkk dem na kóoñ bàkk war na mbaam wuuree dem na këng loolu loo dee jaan mu jar loola ñeen wax ko taxam leen ko sëñ firi Sëñ Tuubaa firi na kóoñ mooy boolu wopp ndee ne calax ngopp ndee dugg na la den dem ba tële na saye jabar yi dem ba tële mënuñu ci dara sëriñ ñaan ba tële mënuñu ci dara loolu mooy làkk dem na kóoñ fu la jaax na teg bàyyi yàlla mu rocc ruuf sa ruuf gi ci fab la teg ci jaag bi mooy bàgg war na mbaam ñu jëmale ci armée te kenn mënu ci dara wuréew dem la këng mooy bi ñu la si bunt bàmmeel jëmale ci biir la ndaw doon jaay leen ñu dem lee mu xam lee mu jar lee mu xam lool mooy bu ñu duggee si bàmmeel ba suul la gën wan la gannaaw ku la féetul ku lu sa jëf sama maas bu bon bi nekk den sànk sànk rek loolu wax caaxaan rek sëñ Tuubaa sankul kenn sëñ bi ñu bëggoon tuumaal da ngeen ko laaj bu ak naka te lu mu la jéggal jéggal yaa ngi àgg si si suñu digg moom. sànq sa boobu sa boobu ban ab ànd ko lay sànq di tuddee sëñ bi loo jotee sëñ bi suñu borom mi bind benn yonent képp bu ko wàccee wul wàccee tuuti digle lim tere bàyyi ak lim digle tere lim tere bu nu dee gott di jul loolee rek lan war a sax te wàcce na ñetti téeméeri yonent ak fukk ak ñett leen jox leen di téere ko ne wax ba dagal ñi ñu rajale ñi ñu toroxal ñi ñuy yeew li ñuy tëddee kax loolu def na ñu dëgër te luñ leen yàlla sa ba mat sëkk te taxul ñëpp jub saaba yi ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam di digle ko tere ba sol na suñu borom ne ko yaa ayyuhan nabiyyu jaahidil kuffaara wal munaafiqiin mu bàcc jël si xeex xeex fu ne te taxul ñëpp jub saaba yi dese fi diine di xeex ba tasaare ko fu ñu yóbbu ko taxul ñëpp jub kon Sëñ Tuubaa mën si tax ñëpp jub alaaji Maalik mënu ko kenn mënu ko ku ne da nga ña lay te noo nga ànd nga mën a sowe ñi juddoo sëñ bi te jëm te awuñu fi sëñ bi ak jotewuñu sëñ bi dara muy man di sama morom ki sant Mbàkke ki sant fa fanaa ci yam laa wax ñëpp laa wax fee yi ne fa yonent yi ne fa taabi yi ne nekk fa xutbul axtaab ne borom njëriñ nekk fa loolu lañu woon leen ko ngir lislaam ñun ba lislaam bi taxaw ba ak si ci noonu di defee dañuy fooyee rek bu ëllëgee ñu fekk leen foofu ay nax la ku bëgg a fekk fañ nekk da ngaa ci yoon ngi ma awoon de leen seen diin yi di ko te gëm ko te futti ku liggéey tey liggéey liggéey bu jub di doy seen ñax ci lu lew di ko jaamu yàlla tey gannaaw wàllu diin yi wàllu ko liggéey ñëpp war na sot na nga réew mi liggéey am fi liggéeyatuñu ndax mag ñi mënatuñoo liggéey a yi nanguwuñoo liggéey te loolu tas seen adduna képp lay doon te mboolem li ngeen di def liggéey ko gën te du daal lu ñàkk jom rek ragal tàggat naaj bi képp te suñu maam yi suñu bàyyi dañu meluñu woon noonu ba suñ Tuubaa fee ñu gën a xéewalam it ñi ci amoon jom daal daal dem ci àll na fa dal teen du ja fekk daal ñuy dupp ko fas ko dee def teen di gas di àll na juróo fi bant ba ba ñu am ndox ñu ne diw bënn teen ñu naan kër ma jóob kër ma sàmm kër ma fàll kër ma xuma ku ne loolu jom rek la woon te boobu Sëñ Tuubaa feeñagul